Larry. Larry. oui. xam nga avant dañ doon jël saaku mburu mhm. dem boutique ba ñëw jënd ko dugal ko teg ko foofu lonk ko si ginnaaw bunt bi. Mhm. yenn saa yi yi da ngay jël benn xam nga dañuy jël benn pañe rek. rek mhm. teg ko si. ah yenn saa yi yi dañuy jël ay muusu glace si collatéral bi su su glace su glace bi formé ñu toj ko def ko ay kii yu ndaw a ndaw. après voilà ay glaçons léegi nag loolu yëpp vraiment am na léegi ay contenant yoo xam ni euh, vraiment dañ ko siy dugal mu rafet lool bi nga xam ne mu nga ko teg sa Euh, sa kaw table wala teg ko sa table de chevet wala nga te ko sa cuisine vraiment day excité et puis day nëbb surtout euh, lekk bi si siy dugal. voilà euh, tey nag dañuy wax ci loolu dañuy commencer ci li nga xamante ne moom mooy ay garde-pain nga xamante ne bu njëkk ba comme li nga wax rek ay sachet mburu moo amoon ku daan jëndi mburu sax dañ la naan demal nga yóbbu mbuusu mburu mi. ba tey nag jugu fi mais euh, àddina buy dox dangay dox di ànd ak moom dañoo def yoo xamante ne dafa ba gën a na gën a civilisé am na léegi boo duggee ci kër yi da ngay gis ay garde-pain yoo xamante ne dafay rafet am na yoo xam ne ay aluminium lay doon am na yoo xamante ne day doon en caoutchouc da ngay gis mburu mi ci biir place bi am na léegi yu ñu génnee yoo xam ne day am foo xam ne place su beurrier bi lay am super am yoo xamante ne da nga fay garder couteau bi nga xamante ne moom ngay daggee pain bi ak kudd bu ndaw bi nga xam ne moom ngay defee chocolat ak ñoom euh,

am na yoo xamante ne genre bool lay doon day bëri ay euh, ay da nga koy ubbi nii muy xaw a yaatu fii da nga fi def pomme fii nga def fi banaan fii raisin ainsi de suite Yacine bu fekkee ne am nga yeneen image nga daal di ñu koy tegal de même que panier yi nii nga xamante ne léegi en plastique lay doon da nga koy jël daal di dañ koy jaay sa lekk bu desee mun nga ko jël daal di ko ci dugal fermer ko hermétiquement daal di dugal ci sa congélateur demee da ngay ñëw rek daal di génne def sa micro-ondes daal di tàng mën nga dagg aussi ay fruits bu desee nga jël ko daal di ko ciy dugal parce que léegi dootoo duggati ci benn waañ ba fekk fa ay désordre wala genre yo absolument et ça c'est très pratique ah. par exemple añ bisou de desee wala ñànk tag bi wala sauce bi. Mhm. da ko si dugal bàyyi ba mu sedd. nga dugal ko tëj ko ràpp rek dugal si frigidaire day doon yoo xamante ay forme de barquette lay doon. Mhm. mais par exemple bu ñu barquette rek ñun dañuy wax plastique euh, kii bi la ñu gën a xam. aluminium bi la ñu mhm. gën xam. mais yi barquette yi day doon yoo xamante ne <clears throat> plastique dur lay doon. boo ko congelé une fois mën nga ko teg bés bu décongelé da ngay ñëw rek dugal ci micro onde bi. mu tamit barquette yi mën nañ ko jox mën nañ ko jox xale tamit. ñu koy ko xale yi ñu daal di koy yóbbu école yooyu am na yoo xamante ne day am place su pain am place boo xam ne dañ leen fay defal lekk day ànd ak seen couteau ainsi de suite. Mhm. même que pañe yoo xam ne panier à salade oh, la. mu civilisé rek. gis nga ni mu civilisé dangay ñëw rek bii def nañ si seen poivron bii seen perche chinois ainsi de suite da ngay seet li nga xamante ne moom nga am ak moom ngay soxla nga daal di koy ranger sa frigo. Mhm. donc day tax sa frigo bi du tilim du mhm. tooy du salte du def dara mhm. même bu njëkk ba da ngay gis mag yi bu ñu raxasaanee salade dañuy ñëw teg ko takk ko ci benn morceau gaz takk ko ba mu dëgër di ko wiccax benn morceau gaz mooy gaz morceau boo ah, xamante ne voilà tissu lay doon bu ko defee ndox bi dafay daal di wàcc wala affaire plastique boobu nag lañ voilà léegi nag loolu dafa am benn bool lay doon boo xam ne dafa am benn panier ci biir mhm. am kubéer kubéer bi day am benn genre boule moom ngay jël nii booy jàppoo moom ngay jël di ko yëngal da ngay mel ni ku koy wal te loolu juste pour mu génnee ndox mi la da ngay gis ndox bi dafay daal di génn ba jeex te euh, salade bi après dafay daal di wow euh, te yëpp en plastique lay doon léegi nag tey li lañ leen indiloon seen rubrique bon plan yi nga xamante ne fa ngeen di dencee seen lekk yi uh-huh. boo leen di dem nit da ngay am sutura dem jëndi mburu li sama yaay di bañ bokk ko ñëpp xam ñaata miche de sax nga jënd day damm ku romb coqati ko ci mbedd bi lekk bopp bi balaa ngaa ñëw bu dee deux miches de pain nga lekk quatre bopp mburu yëpp boo demee si biir wàññi aussi da ngeen fay teg seen ay euh, salade yi defar seen ay fruits pañi fruit bi defar ko daal di koy fermer hermétiquement day am ay trou yoo xam ne mbóoti du ci mën a dugg day baax parce que ñëpp xam nañ ne lekk boo ko tegee weñ yi dañ koy biiw mbóot yi dañ ciy daal di dugg laari avant ngay ma posé la ñaari question rek xam nga liquide tamit dañ koy yore c'est-à-dire que boisson mhm. bi nga xam dañ ko bëgg yóbbu avec les les les les mhm. bouteilles isothermes mhm. wala yenn saa si congélateur bi sax da ngay gis yenn saa ñu defal si bac boo xam ne da rocci di ko di ko si roof ak tamit beneen aspect boo xam ne suñu épices yi mooy mhm. jumbo beeg poobar beeg mhm. euh, euh, euh, yenn épices yi mhm. dafa am léegi ay ay ay bocal yu ndaw yoo xam ni vraiment dafa esthétique trop te mën la permettre nga conserver ko plus longtemps te muur du ko laal wala benn bestion du ko laal si si avant may fàtte damay commencer ci li nga xamante ne moom mooy baggu glace yi comme li nga waxoon bac yi dañ daan ñëw toj léegi am na ay tablette yoo xam ne da ngay ñëw def ndox yu am ay forme sax yu am ay forme da ah. ngay ñëw daal di tooyal def ci glaçon am na yeneen yoo xamante ne ndox mi ci biir lay nekk en plastique lay doon day doon ay jeu de couleur lay doon yooyu plastique boobu ngay jël congelé ko boo ko congelé boo xeelee boisson da ngay jël plastique rek daal di def ci ndox bi ci day sa boisson te du bënn du def dara bu da ngay raxas rek congélateur super euh, yooyu dafa doon yoo xamante ne dafa baax sophistiqué bu njëkk ba da ngay gis buñ ñu daan def ay euh, euh, cocktail de jus mhm. dañuy ñëw di jaxase mélange léegi dafa am ay fontaine yoo xamante ne ça coûte pas cher dafay ànd ak seen ay pieds ak yëpp mel ni day am benn genre robinet da ngay ñëw def sa cocktail de fruits sa cocktail de jus bu neex da ngay rek ubbi comme fontaine yi lay mel sa glaçon mm-hmm. parce que lu chinois indi ci chinois matériel bon non ci dépend catégorie sa poche fan la toll mm-hmm. soo demee ci ñi nga vaisselle tout donc euh, nous avons besoin nous les femmes mm-hmm. di nga ko fa gis da ngeen di dem di range vaisselle ñëpp a civilisé. léegi nag euh, pour euh, xam nga avant soo utilise xasee ba utilise sa sa sa benn kii maanaam nag bàyyi mu wax ko rek benn jumbo wala magie. Euh, da ngay utiliser moitié bi beneen moitié bi nga bàyyi ko foofu après nga gis benn mbooñ ñëw taxaw si wala mhm. wala dara wala weñ wala quoi que ce soit après nga mhm. sànni ko. léegi sax li ñuy def am nañ ay genre pot yoo xam ne dafa am ay trou mhm. d'habitude ñi nga xamante ne am nañ jot bu ñu ko jëndee dañuy jël yëpp mokkal ko ci ba mokk daal di ko siy tëj bu ñuy ñëw dañuy wis rek wa ila am nga am na ay pot yoo xamante ne genre yi day fermé wu hermétiquement da ngay daal di ñëw bu la neexee nga daj yëpp def si bu la neexee nga daal di ñëw rek def ci benn par benn yaa xam ni nga koy defee mais mhm. li bon te yées mooy nga jël dajj ko rek daal di koy teg parce que bouillon yi d'habitude boo ko jëlee daal di koy dajj def ko à moitié boo demee 30 mille boo ñëwaanee day tooy dëgg la dafay toy doto ko meuna ci utiliser boudé ay euh, euh, sur le plat genre yooyu li ngay meun rek moy nga def ko ci nokkas je sais pas nak ban matière lañ ci def ba mu koy tooyal mais jigen yi nga xam dañuy togg xam nañ li may wax deug la ah mais damay ah, xam naa li nga mhm, yow da ngay togg ah, chef euh, ndjay chef man damay togg yi damay dagg damay fóot damay changer couche damay joxe biberon damay raxas biberon ak lan encore damay raxas douche damay raxas damay far keur damay def lepp man yow la gëm man ci am de yow laa gëm dëgg man man yow la gëm da nga am classe <laughs>